oui euh, man Magueye Boye laa tudd man maay euh, coordonnateur mouvement à l' appel de Khombole appel ñu koy woowee action pour le progrès une exigence locale maanaam jëf jëf yoo xam ne nii saa yoo tegee jéego muy njariñu askat wi loolu mooy solo suñu liggéey liggéey bi nag ci biir mouvement bi ak ñëpp ñi mu àndal dafa am ñaari tànk yoo xam ne nii noonu la ñu fas yéenee doxee tànk bi nga xam ne nii mooy action citoyenne maanaam di jëf-jëf yoo xam ne nii naam ci dëkk bi nga waaye amoo mandat pour jëf ko maanaam wareef yi nga xam ne nii moo war ci kaw ñi ñu fal waru la moo tax nga koy jëf waaye danga koy jëf tax mu neex la ci dëkk bi nga dëkk beneen bi mooy fexe ba fa nga xam ne ni moom la ñuy dogalee nga jël ko ba contrôler ko bay doxee ñaari tànk yooyu muy jëm ci développement moonaam naam initiative citoyenne di jëf-jëf yoo xam ne nii du wareef ci yow ak action politique engagement di fexe ba li war leneen leneen ñu war la ngir ngay doxee ñaari tànk yooyu pour jëm ci yokkute askan wi loolu mooy suñu mébét lii ñu def nii tey du bi guléet euh, booba léegi mat na ñeenti at defoon nañ ko population yi ñëw ñu consulter presque 2000 personnes mais ci 2000 yooyu identifié nañ ci 1500 maanaam junne ak juróomi téeméer yoo xam ne nii soxla noon nañ ay lunettes ci jamono boobu ñu jox leen ay lunettes yoo xam ne nii boo ko doon jënd tey dina cher am na yeneen yu ñu fi def ci wàllu sante waaye defuñu ko. ngir jàpp ni li nekk ci secteur santé dafa soxre ba nasaxal déedéet ñun dañoo ñëw ngir jàppale nguur yi fi nekk ndax li ñuy def nii du nguur moo ñu ko dox du nguur moo ñu ko wéer dañu ko def ndax daf ñoo neex ndax ci gox bi lañu ñu dëkk ñu bëgg a delloo njukkal dëkk bi nga xam ne nii mu ngi jubale may ñu ba ñu agsi fii donc loolu du ni dañoo gis ni politique sanitaire dafa sooxe dañoo gis ni jëfi doomu aadama la te jëfi doomu aadama taxul mu mat kon jëfi nguur ak jëfe commune bi ak état taxul mu mat ñun ñi nga xam ne nii am nañu mëneeglu néew ak dugg-dugg yu bari war nañoo mën a fexe ngir jàppale leen ci loolu nga xam ne loolu la doxe waaye taxul ñu ni nag dañuy toog ni yàcc bu dëkk bi jotee laaj ko ñu laaj ko dañoo fas yéene bu jotee ñu bokk ci ñuy laaj dëkk bi ngir doxal ñaari tànk yooyu ñuy doxal pour jëm ci ñun du ci volet sante kese secteur bu ci nekk njàng wér-gu-yaram aada càkkeef liggéeyu ndaw ñi Euh, tàggat yaram benn bu ci nekk am nañ ci programme bu leer programme bi ñu ngi ko tuddee un quatre quinze soixante benn gis-gis gis-gis bi mooy xombol sur orbite naka la ñuy def pour yëkkatiwaat xombol ñu séen ko loolu mooy gis-gis bi ña ñeenti axe euh, stratégique maanaam ay xal yoo xam ne dañ koo xàll ngir jaar ci ak fukk ak juróomi ak opérationnel maanaam yi doxalin yoo xam ne nii moom la ñuy xàll pour doxal ci pour jëm ci yooyu yëpp boo ko méngalee benn euh, ñeent fukk ak juróom dalay jox 60 loolu mooy jur 60 projet ak euh, ak action ak engagement yoo xam ne ni fas yéene ñu ko def pour Xombol justement secteur santé bi du nuy maa ngi leen wax du ñu guleet ñu nekkoon ci ndax ci suñu biir gis-gisu développement ak suñu programme daf ci loo xam ne dañ koy jëf tey du xaar ndax programme boo ci mënul tàmbali jëf ko dafa mel ni programme ba maîtriser woo ko ñu ñen ñi dañ koy jëf tey nit ñi di ko gis leneen li bu ñu joxee dëkk bi ñu gën koo yaatal gën koo yokk ndax mandat bi moo ñu koy may justement ci gis-gis boobu looloo ñu mayoon benn euh, partenaire xombuluwaa bu nekk bitim réew muy Mouhamed Ali Ndiaye ñu amoon fi benn ambulance offrir ko centre de santé bi looloo ñu mayoon ñu signé contrat ak euh, benn structure boo xam ne nii dina jox centre de santé bu xombul pendant un an nga xam ne ni képp ku fi am problème mu nokki ci wàllu Covid 19 bi ak ci beneen wàll bu mu mënti doon ñu mën la jël en charge bala ngay dem feneen loolu moo indi troisième vole bii ñu am. maintenant ci volet santé am nañ ci volet infrastructure volet accompagnement ak volet journée de consultation spécialisée loolu suñu gis-gis pour accompagner les population tey fas yéene ñoo joxe ñaari junni paire lunettes. nit ñoo nga xam ne nii conjuncturel lañu jàpp ni dañ koo soxla ak ay tuufaay yoo xam ne nii jamono bi wanant bi ak conjonctivite bi bari na dinañ ko jox ñi nga xam ne nii consulter leen fekk ñu am problème gis-gis képp koo xam ne nii identifié nañ la gis ni sa cataracte dafa atteindre niveau de maturité bu jar intervention ñun lépp lu ci war dinañ ko def ba ñu opéré la ba lenn li nga xam ne nii moom la ko séenee euh, teree gis ba nga mën di gis normalement loolu fas yéene nañ ci accompagner population Fatou saw ñoo gën maa xam si Fatou Lawbe. d'accord bu nu mel. xanaa kontaan ci rek. Mhm. di ci bëgg rek. Ah. di ko ñaanal. di ko fi def yàlla dolli ko jaamu dolli ko sutura ndax nag ku baax la te lii dimbal la ci xombal te defu ko tey dong nag yàgg na koo def wax dëgg yàlla xale bu baax la bu am yar bu am teggin mhm. bu bëgg dëkkam nag bu bëgg xombal lu mu am rek indi na ko xombal ndax looloo waral tey bisu tey bii. ndax bu ko neexoon nag ah jël alalam di ko foyee waaye macha allah xam na ne xombal la juddoo fila la yaroo fi la màggee fi la amee tarangaam mu déposé wu delloo siwaat waat xombal. waaw rawatina ci jigéen ñi rawatina ci jigéen ndax def na ko fi ñaari yoon ba ñetteel baa ngi nii kon defalu ko kenn ñun la ko defal ndax dem hôpital rang bi dafa metti nga dagg ticket ñu bind la ordonnance ngay koy lijjanti te doo ko mën a lijjanti ndax jaboot mënul loolu. waaye ku la indil ay docteur ci sa ci sa dëkk may la ay verre yoo xam ne yaa ngi ko doon jënde juróom benn fukki junne wala nga jënde ko ñeent fukki junne wala nga jënde ko ñaar fukki junne kooku mënatoo koo fay mm-hmm. dañ koy ñaanal rek yàlla na sut yaayam jëf fanta de sa barke bi yàlla na sut baayam ba fanta de sa barke bi kontaan nañ ci moom bég nañ ci moom xombal gépp kontaan ci lii ba bëgg wax dëgg yàlla waaye boo ñëwee fii macha allah bu nu ñëwee fii dinañ ñu may suñuy veer dinañ ñu may suñuy tuufaay ah dinañ ñu faj ñu ko ci ñaanal rek yàlla jëmale ko kanam waaw poste de santé yi wax dëgg yàlla baax nañu ndax tamit boo jaaxlee fa nga jëm man ko boo jaaxlee fa nga jëm waaye ku lay yokk ndimbal ah waa dañ leen a dool gën a dool dañ leen a dolliwaat doole rek ndax wax dëgg yàlla ñun ñu ngi ñuy jàppale ndax bu ñu jaaxlee fa nañu fa nañu jëm muy guddi di bëccëg ñu ñuy recevoir nag di ñu toppatoo kii nag da cee rawati ndax kay ñëw di la may bokkul ak koo fa bala ngaa faju da ngaa def sa xaalis waaye moom poste de santé bi macha allah ñu gërëm nañu docteur yi fi nekk yëpp sant nañ leen am nañu yar am nañu teggin boo ñëwee dinañ la recevoir nañ dalal sa xel dinañ la seet soxla soo nekk dinañ ci jàppale ba yàlla def la gën waaw sant nañ ñëpp gërëm ñëpp xombal moom benn bopp la lu ci laar rek kenn koo ci laar rek laal nga ka ca des honnête nag ñëpp la jàppale lii ñëpp la ko defal ndax ba mu ko jëkkee def ay kaan ak yëpp man sama papa wàcc na liggéey waaye ba tey ñaari kaanam a nga ne tege ak i veeram mi ngi ci biir armoire ba ñu téye def ko souvenir nanguwuñ koo joxe sax booy ñu koy ñaanal fu mu bëgg àgg yàlla ko fa yàlla àggale ku baax la ku jàppale xombal. Euh, maa ngi tudd Ousmane Diatta euh, nekk directeur euh, des opérations bu organisation africaine pour le développement académique et sportif ñu di ko wax OWADAS. OWADAS nag nekk structure boo xam ne ñu ngi ko sancee ca Amérique lu tollook ñaar fukki at yàlla def. Euh, ñu ñëw fii ci euh, euh, dëkk bi di Xombol mu nekk sunu ñaareelu édition ñu ñëw fii di def lu ni mel gis ngeen nit ñi nu nu bëree di ñëw di def li ñu naan consultation oftalmo ci bët seetal ni ñi seeni bët ba pare ku ci war a am lunette ñu jox la lunette yi gratuitement ñu ànd si nag ak sunu xarit sunu wëlëri sunu doomu ndey Euh, di président euh, di coordonnateur mouvement à l'appel de Xombol euh, ñu ànd si ak moom mu di magey Boye mi nga xam ne suñu xarit la looloo tax ñu ñëw fii te Xombol nekk dëkk boo xam ne ñun dañ cee bokk. pare ngeen à chaque Xombol ci lu ñu waaw waaw waaw te du ci lii rek la yem sax boo seetee def nu fii indi nañ fii équipe basket indi ay ay parce que Owadas nekkul structure buy yëngatu ci santé kese. def nañ fi camp de basket dimbali xale yi xombal indi ay équipement maillot blouson dàll ballon basket ak yooyu dimbalee leen ko encourager leen aussi ci sport donc kon euh, lii buñ ko defee dañoo def deuxième édition bi mais bu doon day am vingtième édition tamit pare nañu di def lu ñu mel ndax lii euh, dafa am solo ci askan wi boo gisee nit ñi ni ñu ñëwee tey jii nga xam ne lii lu am solo la bu weesoo loolu ki ko ki ko li yëngu la ko yëngal ko ëpp doole Magay Boy euh, di euh, euh, coordonnateur mouvement à l'appel de xombal jarne na lii te moom Xombol rek ko ñor donc ñu buggoon ànd ak moom mu war ñu nekk suñu devoir ñu ànd ak moom di jàppale askanu xombal ak li ko wër.